moo ngi sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dool ko xewal ko mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba dina tukki mbokk yi fii ak i fan rek tabaski gi agsi tabaski nag feet la ñi ko korit ñi ko korite doone yonente bi moo leen tudde feet moo ne jullit ñi yaari feet yooyi seeni feeta feet nag ci lislaam ni nu ko xame day boole mbégte akuk yaatu ak nag jaamu yàlla yépp ci ànd bu dee tëbaski nag jaamu yàlla gi nu ciy def yaara koy jëmmal julli giñ ciy def ak it ren di bi nga xam ne itam ku ko man dana ko ci def jaar yooyu ay jaamu yàlla lañu yu ñuy def ci bisub tabaski jaamu yàlla gum mën di doon nag mbokk yi balaa doon lu yàlla di nangu ba muy jariñ ka koy def day am ñaar yu ci war a daje ñaare ciy daje mu door a doon lu yàlla nangu te bu doonee lu yàlla nangu ci la doon amal njariñ ki ko def ñaar yooyu mooy war na ko defe nañ ko digle kon mooy dëppoo ak ndigal ndigal nag ci yonente bi salallahu alei walihi wa sallam day jóge mooy kon war naa dëppoo ak ni ko yonente bi bëggee nam ko diglee ak nam ko daan defe ñaareelu mbir yi mooy sellal yéene ji yaar yooyu mooy daje ci mbir ci ak jaamu yàlla mu door a doon lu yàlla di nangu loolu moo tax ba jullit jaamu yàllam yépp war na caa moytu lépp luy bidaa bidaa mooy lu wuuteeg nu yonente bi doon defee sallallahu alayhi wa sallam waaye jaamu yàllam yépp itam war na koo def te jublu ci rek wut ngërëmul yàlla bañ caa dugal njistal bañ caa dugal puukare bañ caa dugal ndamu bu dee ci tabaski nag ni ñu ciy dëppoo ak ndigal mooy di ko la ca jiitu li ca jiitu mooy bañ caa tegoo nit ki bañ caa tegoo lu mënut loolaa jiitu ci dëppoo ak ndigal ndax ñi ñu ko sant ñooy ñi man ñi man lañ ko sant kon ku mënut bokkul ci ñiñ ko sant ku manit ku manit kem kàttanam na ca yem loolu moo jiitu ci dëppoo ak ndigal ci wàllu tabaski la ca toppit nag mooy mu tabaskee liñ diglee ku ko tabaskee nin ko xamee mën naa doon xar mën naa doon bëy mën naa doon nag mën naa doon giléem noonu lañ gënantee ci man xar naa tabaskee xar bu ko mënut taman bëy mu tabaskee bëy bu ko manut wala bu ko amut ta am nak mu tabaskee nak bu ko amut ta am gilem mu tabaskee gilem loolu loolu bokk na ci deppo ak sunna loolu mom nit ñepp fokk naane dañ koy def danaka ñepp sax xaar rek lañu ñuy la ca topit nak moy lolou muy yit am melo amna na melowu wu mu wara amé melo rek moy mu baña am sik yu fess sik yu fess baña lu luy soox soox bu fés bañ doon lu pat bañ doon lu gumba bañ a doon lu loof loof lool bañ doon lu wére di lool yu mel noonu mu moytu ko ci li muy li muy tabaskee ku ko boole moo di nekkoon kon tabaski gi dëppoo na ci ak ndigal maye nañu it genn kër ñu rendi fa mel na tabaski bu amee sax ñeneen ñu fa nekk boroom kër gi bu rendee am tabaskeem yéene waale ci waa kër gi loolu sax na ci sunna euh, saxaaba yi nekk li ne daa nañ ko def jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dëppoo ak ndigal li amee ba noppi nag yéene ju sell ji it mënu cee ñàkk yéene ju sell nag mooy def ko ngir yàlla rek bañ cee dugal ngistal bañ cee dugal puukaréewu bañ cee dugal ndama ndax alquran bi muy wax ci wàll gi wàllu li ñuy rendil li ñuy rendi ngir yàlla ci aj la koy wax aj itam ci la ki duggaale ndax ci fanee aj gi ci la tabaski gi ñëw ki ci la waaye yani ya nga xam ne ñooy aj itam dañ koy rendi te du tudd tabaski itam ci la dugg bi alquran di wax ci loolu bay daaneel dafa wax ne nag yàlla nag reyaayu li ngeen di rendi du moo ko saf reyaay bi safu ko waaye li ko saf mooy seen xol fi ngeen ci teg yàlla waaye du rëyaayu li ngeen di rendi mooy li am njariñ fa yàlla li am njariñ fa yàlla mooy fi ngeen teg yàlla moytu bi ngeen di moytu yàlla wattu bi ngeen di wattu yàlla waaye nag ku ne xam na ne bari na ci nit ñi ñoo xam ne daanaka tabaski defatuñ ko mirum jaamu yalla way mirum aada lañ ko def mirum aada aada rek lañ ci top mo leen di yobbe ñu ci tegoo luñ mënut mo leen di yobbe itam ñu ci rew lool nak euh, wóorut ndax nit mën na son ci mbir def ci alalam def ci coonoom def ci lu ba noppi lu ko amal jeriñ ëlëk yalla na yalla musul ci lool donc ñaan yalla mu kon banuy sellal suñuy jaamu yàlla dimbale yi itam ba suñuy jaamu yàlla nu koy dëppalee ak niñ ko diglee di ko ñaan tam mu defal ñuy àddina ak àllaaxira musal na ci sawara sàmmal na sunu ngëm ubbil nu bunt yiw yi soob na ci njub mottali suñuy mébét may nu fanu gudd ak wér ak mun ko rafet